Samba wan ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. yow yaay secretaire général section syndicale bu COPEOL ci syndicat national des corps gras tey fan la COPEOL toll ci campagne bi ak jafe-jafe yi ñu doon wax ne yéen ngi ko ciy jànkonteel. waaw COPE COPEOL tey mu ngi nekk ci ay jafe-jafe nekk ci ay jafe-jafe ndax amul gerte mu liggéey. donc euh, ba tax na daal euh, ñu ne dañu dañu fexe dañu dañu personnel permanent bi nga lim bi toll na ci fukk ak juróom-ñeent li waral loolu mooy comme ni ko ñëpp xamee campagne bi nga xam ne dafa doy waar lool parce que dañu waroon na am lu ma quatre-vingt mille tonnes gerte pour liggéey yàlla def na euh, ñaar téeméer ak juróomi té ñaari junni ak juróomi téeméer rek la ñu am deux mille cinq cent tonnes loolu nag mënul tax usine bi tourné donc looloo tax décision bi nga xam ne moom la direction bi jël foofu la sukkandiku ak euh, nga xam ne état bi yorel na ko ci bor yi nga xam ne subvention wu euh, ñaari at yu weesu la bu toll sept milliards jafe-jafe yooyu daal tax na ko ba société bi nee na euh, moom toll na ci difficulté yoo xam ne moom dafay libéré travail liggéeykat yi ñu toll ci ñaata liggéeykat euh, fukki liggéeykat ak juróom-ñeent d'accord deux cents agents yi waaw deux cent agent yi ñooñu ay ay ay saisonniers lañ. Hmm. c'est-à-dire bu usine bi collecté ba war a tourner ci la ci la leen di recruter hmm. donc euh, di liggéey ñooñu jotuñu sax euh, jotuñu leen sax en fait ci ñu ci jotoon a woo ñooñu lu ci fanweer ak quelque ñooñu libéré nañ waaye am na yeneen téeméer ak lu teg yoo xam ne jotuñu sax jotuñu leen sax woo. d'accord permanent yi ñoo toll ci fukk ak juróom-ñeent. déedéet ñi ñu permanent yi ñu war yi ñu war a yi ñu war du ñëpp la ñu licencier. d'accord ñoo toll ci 19. waaw. Mhm. Euh, tey jafe-jafe bi euh, lan moo koy expliquer wax nga bor bi euh, wax nga itam xëy na gerte gi ñàkk waaye dëgg-dëgg lan moo sookee jafe-jafe bi. waaw li li ko sookee mooy ci campagne bi di door état bi dafa ne production bi toll na ci un million quatre cent mille tonnes alors bi ñu. ñu commencé collecté euh, da am fukki fan ak juróom ñu mënuñu am sax cinq cent tonnes alors ci lañ alerté ne kat attention chiffres yi nga xam ne wax nañ ko mais moom moo am moom moo fi am comme gerte amul ba pare euh, ñu nekk fekk ak ñoo xam ne ay chinois lañ ñoom euh, ñooy fi joxe prix yoo xam ne ñun mënuñu ko fay mënuñu koo fay mënuñu ko joxe ñoom ñu ngi doon fay entre deux cent soixante quinze ba trois cent. kilo gerte gi. donc ñoom nag ñoom nag loolu li tax ñu mën ko mooy ñoom dañuy jënd gerte gi amuñu benn charge c'est-à-dire amuñu ay liggéeykat yu bëri amuñu ay impôts yu ñuy fay amuñu ay cotisation yu waaw du ñu fay benn taxe hmm. donc moo tax ñoom ñu mën a fay prix yooyu ñun nag ay entreprise la ñoo xam ne dañu implanté wu di fay ay salaire di fay ay impôt di fay ay taxe di cotiser liggéeykat yi ci presse di leen cotiser caisse de bokkul ak ki nga xam ne moom amul benn benn charge hmm. looloo tax mënuñu woon fay fi ñëw. Euh, sànq yaa ngi junj 1,4 million de ton euh, yi nga xam ne xëy na moom moo leen faussé depuis le départ ndax loolu la ñu waxoon ne moom la ñuy am ci gerte euh, waaw xayma boobu kan moo ko def ak fan laka ko teg. ministère de l' moo ko def donc xam naa bi ñu sukkandikoo ci chiffres yi nga xam ne ay agents ñoom ñoo ko jox ci la sukkandiku wax ne production bi ren toll na ci un waaye boo boo xoolee ni mbir mi demee di campagne bi démarré ba léegi li nga xam ne moom lañ mooy site yi nga xam ne moom lañ am muy li nga xam ne moom la chinois yi jënd exporté ko mu ngi toll ci quatre cent mille li nga xam ne huiliers yi co huiliers yi collecté nañ ko boo ko boolee yi ñoom ñëpp mottu rombul vingt cinq mille tonnes euh, li nga xam ne moom lañ collecté pour semence rombul cinquante mille tonnes donc loolu boo ko boolee motul sax cinq cent mille tonnes donc looloo tax ñu ne chiffre boobu na lool lool ak un nga xam ne moom lañ hmm. ci sa xalaat lan moo waral ñu joxe chiffre bu toll noonu. bon xaw ma lan moo ko waral xaw ma ci fan lañ sukkandiku te xaw ma lan moo ko waral waaye jàpp naa ne daal am na am na daal eh, ay ay eh, en tout cas am na am na lu loo xam ne daf leen di su production bi rombul un million de tonnes amuñu droit euh, autoriser benn exportation dama jàpp ne kon looloo tax ñu nekkoon kon nañu fexe ba chiffre bi romb un million de tonnes pour que chinois yi mën a ñëw jënd gerte yi parce que jàpp naa ne. Ah. waaw waaw. allez-y allez-y. waaw parce que jàpp naa ne euh, euh, am na benn en tout cas benn benn règlement bu leen bu bu bu buy tax su tonna su tonnage produit euh, au Sénégal rombul un million de tonnes kenn amul droit en tout cas exporter lu ëpp cent mille tonnes. donc euh, loolu moo waral xam naa ñoom tamit euh, pour permettre chinois yi ñu ñëw fi en masse ñu ñu déclarer ay chiffres yoo xam ne romb na ñu leen tonn. ñoom bu chinois yi jëndee gerte gi lan lañ ci am nguuru Sénégal ci sa xalaat. Ah, am naa na xam ne du ci am dara parce que am na benn taxe boo xam ne dañ ko tegoon sax taxe à l' exportation de quarante francs sur kilo dañ ko mm-hmm. teggi woon waaw dañ ko teggi woon. d'accord bi jafe-jafe bi état bu Sénégal ci euh, jaaree ko ci ministre de l'agriculture euh, daal dinay euh, jël dogalu dakkal lépp luy exportation ci gerte gi ndax loolu tey mun na jur saafara ci mbir mi. non décision boobu bañ koy jël fekk day wenn muus parce que gerte amatul ci àll bi donc ba tax na ñun jàpp nañ ne décision boobu amatul benn njëriñ mm. tey tey tey tey muy Sonacos muy ñun muy yeneen liggéey kenn gisul gerte. malgré que des euh, mesure boobu am na mais kenn gisul gerte ba léegi ñu ngi toog di xaar mais gisuñ ci gerte donc euh, jàpp nañ ne donc li fi amoon ci gerte lépp euh, chinois yi jënd nañ ko yóbbu ko seen mhm. chinois yi jënd nañ lépp yóbbu ko loolu ban jeexital la mun a am xëy na sax ci yeneen campagne yi ñu dëgmal. waaw xanaa jafe-jafe rek jafe-jafe parce que bu ñu yóbbee seen bi ñuy gerte bi li gën a baax ci gerte gi na daal ñun jàpp nañ ne euh, campagne bi di ñëw nit ñi dinañ am jafe-jafe bu tar ci ci ci ci wàllu semence. mooy jiw bi euh, loolu la. waaw société bi ci mel nii ñun nga xam ne dafa defoon contrat ak ay groupement de paysans euh, accompagné woon leen daaw jox leen semence jox leen engrais ñoom bi ñu bi ñu bi ñu béyee dañoo dañoo jël seen. dina dina tax daal en tout cas campagne bi dina bëri jafe-jafe lool. kon tey bu ma la déggee problème bi gën a mag wala li gën a sooke problème bi mooy prévision euh, yi nga xam ne defoon nañu ko waa nguur gi wax ne 1,4 million de tonnes lañuy am loolu ngeen ni sore na ak li am justement euh, ci seen xalaat ñaata tey la Sénégal di produire ci gerte bu ñu ko xaymaa ci li nga xam ne moom ngeen am ak li waa Sonacos am yéen waa COPEOL. waaw mooy chiffre yi ko boo ko xaymaa waaye am na benn chiffre boo xam ne mooy euh, li nga wax la consommation locale nga xam ne moom la ñuy jaay ci luuma yi moom la ñuy defee déggee moom la ñuy defee leneen loolu ñu ngi ko estimer ci année yi passé à trois cent mille donc boo ko boolee ak chiffre bu ma la jox muy à peu près cent mille donc euh, boo xoolee li ñuy wax les surfaces englobées ils sont à neuf cent mille tonnes mooy euh, li nga xam ne moom moom la ñu xayma ci suuf suñuy béy hmm. donc mu ngi toll ci neuf cent mille hectares rendement bi nag dafa wàcc bu baax a baax loolu tamit bokk na ci lii li li li fausse chiffre parce que boo xoolee euh, ci euh, ñun en tout cas ci suñuy chiffre hmm. les dernières années euh, rendement bi mu ngi nekk ci six cent cinquante kilos à l'hectare ndax ci dolli nag ren ñëpp xam nañ ne nawet bi ni mu demee taw yi doyul donc loolu tax na ba li ñu waroon li li ñu yaakaaroon ci basé pour pour def seen i estimation euh, dafa am ay ay ay jafe-jafe yoo xam ne dafa dox ci diggante bi ba tax na euh, donc euh, surtout d' accord yéen tey lan ngeen gis comme saafara xëy na ngir sauver campagne bi ak itam ngir xëy na régler problème bi am ci secteur wu gerte gi. campagne bi moom sauver ko weesu na parce que gerte amatul xanaa kay ci campagne yi ñëw te ñun yàgg nañu wax ne dañu war a toog parce que. ñu ñëpp ñëpp ñi nga xam ne dañuy yëngu ci gerte ñu toog ñu waxtaan bu ñu toogee waxtaan am nañu yaakaar ne dina saafaraw parce que ku ci nekk li nga ca war a wax di nga ko wax cër bi nga ci war a am di nga ko ci am euh, ngir njëriñu Sénégal surtout parce que quand du yoon euh, euh, li gën a doy waar mooy état bi dafay continuer di subventionné semence yi di subventionné engrais di subventionné lu ne subvention yooyu muy alal alal boobu nag soo ko defee ci gerte gi ba pare nga jël gerte googu jaay ko ay chinois donc chinois hmm. yooyu yëpp ay la yoo xam ne bu ñu toogee ñu nga xam ne ñoo seq filière bi bu ñu waxtaanee am naa yaakaar ne dinañ dinañ saafara solution yi ba nga xam ne li am lii ren dootul am. assise euh, yooyu sax justement ngeen dikk ko pour ñu amal ko euh, yaakaar nga ne bu ñu ci génnee xëy na saafara dina am. waaw am nañ ci yaakaar bu baax a baax. Hmm. ñu bëri tamit ñu ngi wax ne ministre bi dafa war a tekki ndombal tànkam. ah waaw ku ku ñu ku ñu jox ministère nga war ko doxal pour intérêt Sénégal ñu gis ne kat euh, danga dafa bëri jafe-jafe bëri lu ci sooxe ah waaw am nañ ñi ñi laaj laajte am nañ am am nañ droit wax ko nañ tekki ndombal tànkam def fekki nga xam ne dina doxal secteur bi ni ko war a doxale parce que très sincèrement euh, ni mu doxalee en tout cas ren campagne bi daal doy na waar doy waar boo xam ne conséquences yi koo gis léegi sax. nañu dem ba ci kanam. Hmm. parce que soo déggee ma ne conséquence jàppal ni euh, li ñuy wax aliment bétail usines yi koy defar seen matière première principale tourteau d'arachide la. Hmm. donc su benn usine doxul benn usine produirul gerte euh, ràkkal donc euh, dina usines yooyu pour ñuy defar ripaas dinañ am jafe-jafe pour pour defar ràkkal donc yooyu benn la ci conséquence yi nga xam ne dans l'immédiat dina dina ñëw ci ñaari weer ñetti weer donc rax ci dolli nag ni ko waxee. semence bu am qualité te doy di di di dina di dina ñàkk donc yooyu yëpp boo ko booree muy muy ay échec boo xam ne ministre bi moom ci ci ndoddam lañ koy teg donc ba tax nag donc euh, man jàpp naa ne daal lii laaj bu nit euh, teg am na fi jógee. d'accord yéen tamit waa COPEOL ngeen di woo nguur gi ci mu fay bor bi xëy na ngir mën a dimbali borom kër yooyu ñu nar a dàq. waaw parce que ñun en tant que euh, syndicat dañu ne. su su su su état bi fayee bor bi nga xam ne am na ko Cotool dinañ mën a toog ak moom ci table de négociation woon ko ne comme yow da nga nekkoon ci jafe-jafe nga ba tax na nga ne da ngay libéré say liggéey kat léegi nag comme état bi euh, fay na la li nga xam ne moom la la amee doon ngir yàlla jéem euh, ndax yàlla nga téye euh, fexeel nga téye liggéeykat yooyu ba campagne bi di ñëw xëj na dina fekk bu bu bu yenn décision yi amee. mais daal ñun en tant que syndicat daal dañu dañu ne nañu fexe ba euh, euh, waxtaan ak direction bi ba nga xam ne liggéeykat yi nga xam ne dafa waxoon daf leen licencier mu téele loolu nag dañu ne nañu fexe nañu laaj fexe fay coppe wala nga xam ne moom la ko yore su boobaa daal négociation yi dina gën a yàmb hmm. loolu ñun ñu ngi lay gërëm fàttali ni yow yaay secrétaire général section syndicale bu COPEOL euh, bu syndicat national des corps gras. jërëjëf